nekk wala euh, loo fa mënti jëlee également euh, c'est pas ci benn partie de ta de faute. amul lenn ñun si lu ñuy sukkandiku parce que droit aussi du wax rek ak la ñu nit di poser c'est à partie de ces actes si ngay waxee lii da ngay jël tele décision wala doo jël telle décision wala dama koy tuumaal lii wala du ma ko tuumaal lii bi Ahmed Aïdara di jógee këram di dem est-ce que ba muy dem dana damay dem si manifestation par la force waaw waaw wala déet amul lenn ci bi ñu mën sukkandiku lu jàpp ne kii dafa jóge mais dafa jóge këram pour dem ci place de l'obélisque Maam Diarra Fam mii dégg nga ko léegi li mu wax damaa jóge pour seeti ko parce que dañu empêché Barthélémy Dias mu génn xam nga nit boo koy boo koy boo koy empêché mu génn dafa am foo koy teg et pourtant empêché nañ ko mu bañ a génn Sonko empêché nañ ko mu bañ a génn këram mais yooyu waxuñu ko mais ki nga xamante nii ne kii en dehors de euh, euh, euh, yére bi muy sol muy député dafa jóge pour seeti nit ñu may ko mu dugg mais waxul ne damay dem manifester yow kay booy tuumaal ni day fekk nga ne la fa la fa ñu ko bëgg a defee fa laa jëm par la force sax nga jàpp ko mais dafa dem di seeti nit Déthié Fall aussi pareil mais fi nga waroon jàppee nit mooy jóge sa kër nga dem na fa ma fa ma choisir ne dama fay manifester ma jóge fa dem fa laa ma nga ma jàpp après interdiction mais amul mhm. foofu laa dama mën a concevoir sax nga ne ah kii kat intention mu doon jóge fii mu dem foofu mais boo leen jàppee sur cette base nga ñëw yóbbu leen garde à vue placé leen loolu nag c'est du gel dafa ëpp c'est trop ça ce qui a été fait c'est trop. c'est il faut le dire. yooyu c'est à c'est, c'est à éviter. mais tout le monde c'est anormal ce qui a été fait. autant fii ku fi def loo xamante ne waroo ko def dañuy taxaw gis na ah yow kat écoute li nga def ni waroo ko def parce que du normal nga du ko def mais ay ñu di def loolu nga ñëw jël leen yóbbu leen ça c'est trop te aussi prison du caaxaan. waay foo de. dafa am mythe aussi dañuy wax. dañuy wax dañuy wax mythe. ci administration ñu wax mit. may di wax da nga ne prison du ay caaxaan maam jaara nga ne. du ay foo de. du ay fo. de. c'est-à-dire prison boo jëlee nit yóbbu ko fa rek dafa war a doon lu am solo. c'est que Macky Sall moo xamul prison. waaw xamuñu prison quoi. moom miy tëjlu xamul prison Omar. prison c'est à éviter. xamul prison te dañuy dem ba benn moment bi. waaw ba pare dañuy dem ba benn moment au delà de l'homme politique ko sax. léegi ñu jàpp ko bu ne xaaral ma dem noppalu ko ji tuuti et c'est ça c'est un danger. c'est un danger da ngay dem léegi di jàpp ni sax day kontaan pour nga yóbbu ko ne la xaaral ma dem noppalu ko ji. repos la su ma reposé ba si yàgg dellu si waat e là se dangereux léegi mythe boobu amoon sax ci prison. amatul nga daan romb sax di xool rëbës di laaxatu sax eh. léegi amatul. da nga naan fii mooy rëbës amatul benn mythe. amul mythe. amatul benn mythe bu am foofu. man de parce que nit ñi tëjee la. da ngay jékki-jékki defoo dara ñu jël la yóbbu la maintenant cette forme d'intimidation ça il faut l'éviter c'est pas bon dans un pays <laughs> l'état de droit te man le passage de l'opposition au pouvoir jaaxal na ma man damay gis quand on est dans l'opposition le prises de position ni ngay dénoncer yenn actes yi ni ngay dénoncer yenn yi mais une fois au pouvoir nga mën lu yow yaa doon wax lii dem mais c'est ça et ça c'est un danger n'est-ce pas yow il suffit nga changer rek jóge opposition dem pouvoir rek nga changer uh-huh. la nga daan bañ démb la nga daan dénoncer démb tey ñu koy def nga di ko nangu donc loolu c'est un problème et ça c'est à éviter réew dina toll foo xamante ni ne apaisement lañ soxla te apaisement boobu dafa am nu ñu koy doxee intimidation d'accord état mën na jéem di intimider ay nit mais il y a une manière am na loo xamante ni ne boo ko defee intimider woo da koy renforcer dans sa position évidemment nit ñi dañ koy gën a naw dañ koy gën a bëgg mm-hmm. surtout bu nekk ci situation boobu ci xam ne ne moom ci li mu nekk droit am la am na droit def ko maintenant état nag il faut ñu xam ne aussi état en un moment donné dañuy respecter la position de l'état et l'état c'est pas seulement le président de la République ce que les gens ne savent pas mmh. parfois réew mi mën na nekk dans une situation boobu ci da ngay sentir ne da nga am insécurité état ne man damay taxaw mais état bi parfois président mën na wax ñu ne ko président yow taxawal fële et l'État parfois peut faire des bavures. Uh-huh. te erreur yom yooyu muy def du ko xool. au ne aussi danaan man am na fu ma toll fu ma wante dañ ma nar a fragiliser mois état je suis obligé de debout. et quand l'État est debout il y a la gendarmerie quand l'État est debout il a la police quand l'État est debout il la justice qui ne se rend pas compte que lii la diw def dañuy jël rek yóbbu tëj ba pare parce que l'État parfois peut être aveugle. et hmm. l' doo xam kan la parce que règlement Mame Diarra Fall li mu wax ñëw naa buntu kër Barthélémy Dias fekk naa fa ay gendarme mais gendarme yooyu si ordre kan la ñuy dem. dañ leen jàpp loolu am na keneen ku ko def kooku si kan kooku si kan donc c'est ça le problème donc l' état day def ba dem ba benn waa boo xam doo xam fan la da ngay jëkk rek ñëw moo tax parfois dans une situation pareille il faut que chacun de nous ñu xam ban taxawaay ban taxawaay nga war a am moo tax Mame Diarra Fall a très tôt compris qu'au-delà de ma personne, mm. je sais que l'État a agi et quand l'État agit, moi, citoyen, je suis obligé parfois, bien que député là, am na loo xamante ni waruñu ma ko teg mais j'accepte te loolu c'est une grandeur même dans ta déclaration mënoon nga def une déclaration incendiaire wax lu la neex explique lu la neex mais vous avez été grande. te loolu pour plus souvent nee il faut ñi di ko tenir compte maintenant député booy génn nag député. Uh-huh. c'est pas n'importe quoi. maire d'une ville c'est pas n'importe quoi. donc am na loo xamante ni ne mën nga xool nooy defee pour désamorcer la bombe mais quant à maintenant di leen jël caka caka leen comme ça jël leen yóbbu leen yóbbu leen rëbës ça vraiment c'est c'est c'est à bannir c'est à condamner loolu moom kenn waru ko def france franchement boobu yaa ngi nouvelle peut-être que avec votre oui, parce que parce que on a on, on vient tous de nous annoncer euh, le rappel de Madiène Diouf. Madiène Diouf évidemment euh, fondateur justement de euh, forces de progrès. une perte énorme pour le Sénégal pour l'AFP. Mmh. mais également pour notamment le politique sénégalais. parce que tam ku xam Madiène Madiène Diouf. xam trajectoire politique très riche. avec euh, votre permission ñu jàlle ko président Moustapha Niass mhm. ak euh, mboolem AFP avec sa famille mais jàlle ko tam Sénégal jàlle ko Assemblée nationale parce que tam il a été député euh, directement à l'Assemblée nationale effectivement di ko jaale waa waa Sénégal yëpp di ko jaale famille am moom Madiène Diouf président Madiène Diouf mu nekk loo xamante ne également waa nouvelle bu ñuy soog a jot la peut-être heure u enterrement beeg lieu bi dinañ ko communiqué ultérieurement d'après ce qui a alors Cheikh dama lay jox yow tamit euh, nga nga nga sànni si sa sa kàddu parce que sa xarit euh, quand même la ñu jàppoon euh, gis nañ la sax tribunal ngay libérer ma femme c'était un geste vraiment très touchant laata ñuy ñëwaat ci honorable mu wax ñu conditions yi ak jàkkaarloowam ak kii di procureur. Euh, bah, je m'associe aux condoléances à, à, à la famille biologique et politique de Madjaye Diouf. Madjaye Diouf maam Diarra sax ma naan ko sama maam Moustapha Niass. Euh, bàyyi na assemblée après moom dina ñëw si diggante. retraite bi mhm. euh, wax nga dëgg parce que euh, Sénégal ñëpp benn lañ. au-delà de relation politique wala et cetera am na ay nit fépp mais maam Diarra suma suma suma nit la ñu bokk Pikine. Mhm. bu fekkee na nit sa la bu fekkee mu ngi ci tolof tolof. ne serait-ce que ñëw gis ko parce que bi mu yégee ni suma waajur dafa gaañu mu ngi woon Italie mu envoyé ma message ne su ma ñëwee Sénégal damay ñëw jaale si donc bis bi mu waxoon ne sax lay ñëw jaare si ma bis boobu lañu ko mm. téye mais loolu dafa bokk ci politique parce que Ablaye Wade suma maam ji ah, ma koy nuyuwaale au passage bi mu demee si baayam na ko dama bëgg sos kuréelu parti politique papam daf ko laaj ndax pare nga pour dem kaso ndax pare nga pour dee donc soo jëlee engagement pour sa réew euh, yooyu yëpp du dina bokk ci sa parcours mais nag li nga xam ni moo ci regrettable mm. euh, ma seetlu rek damay bëgg man lu may wax rek na fekk mu dëppoo ak man lu ma gëm ndax bi mbir mi amee keroog dama leen wax man leen Sénégal dafa am lu ñu tënk mooy sunu constitution. ma ne leen bu ñu jëlee ay takk der yóbbu ko buntu kër Ousmane Sonko ne ko doo fi génn violé nañ son droit constitutionnel. évidemment de se déplacer. Ah. bu ñu demee kër Barthélemy Diaz ne ko doo fa génn sa kër tooñ nañ ko. ñu bàyyi woon Ousmane Sonko mu ne day manifester bu demee ba place de l'Obélisque. ca bërëb ba ngeen jàpp ko. dëgg après ngeen xool lu ngeen koy lijjante mais ici le régime xam na ni Ousmane Sonko génn mu dem jàpp ko ça va être une patate comment on va ñu teg benn stratégie pour anticiper mëdd leen képp leen si seen i biir kër. y' a pas autre chose. Hmm. Ahmed Aïdara noonu Omar Faye mu ngi expliqué léegi nañ ma wax ci code pénal du Sénégal tentative de manifester. fan la fan lañ ko def comme délit hmm. c'est-à-dire ñoom dañu def demande. mu am lieu muy espace ak temps ban heure waaw moom bi leen di jàpp jàpp ñu leen sax ci heure woowu yow xaar ko fa nga ko war a xaar rek donc déjà ma gis ni dafa nekk luy effrité sunu image même au niveau international qu'est-ce qu'on va titrer des députés de l'opposition ont été arrêtés lors d'une manifestation Abdoulaye Mbow a raison rappelé Modou Diagne euh, Decroix dañ ko nguufaan sax yenn ko tànk yeeg ci kaw mais ci bis bi sax bàyyi nañ ko d'habitude ci manifestation yooyu mais ñu traversé ay moment yoo xam ni moment de crise politique yaa ngi koy wax léegi-léegi sénégalais yi nekk ci lijjantum xar nekk ci lijjantum dépense essence bi yokku ñu nekk ci yeneen souci ñu am tension politique boo xam ni dafa egg si benn niveau boo xamante ni ñun sàkkuwuñu loolu bëgguñu loolu te yéenewuñu ko réew mi alors bi yooyu amee pour man c'était des arrestation arbitraires et au même moment bi ñu wax député Abdou Bara Dolly man fii laa toog ci plateau ma ne li mu wax rafetlu ma ko te ànduma ci te propos yu ma condamné la mm. mais tey am na ñaari cër député la am na fu mu bokk tey ci yenn conditions yi ñu ko téye parfois war nañu mën a permettre nit ki am na représentativité rëccul génnul demul fenn nga accordé ko sax même bu dee liberté provisoire saa yoo ko woowee mu ñëw wuy si la mais c'est comme si régime bi